bari ci législative bi waaye nee nañ ko fukki weer ak juróom-ñett yi dañ la daan jox pour nga saytu waaye léegi dañuy ñëw saytul suñu bopp dinañ fukki weer ak juróom-ñett yi ko dese ci ci bopp Sénégal askanu Sénégal dane dañuy ñëw saytul suñu bopp contrôler ko proposer ay loi ba pare évaluer li nga xamante ni moom mooy les politiques publiques comme ni ko réforme 2016 bi waxee ci référendum bi évaluation des politiques publiques te contrôle boobu pour nga def ko wax dëgg yàlla foog nga moom sa bopp foog nga moom sa bopp foog nga moom sa bopp kon lu toll ci ñeenti million sénégalais yooyu ngal la jóg leen ñu takkaat la xasaay yi ndono li ñu bàyyee dafa foor lool te bu ñu defee juróom benn fukki at juróom benn fukki at ak lu teg plus de 60 ans nga dem Guet Ndar amul école primaire nan lañu mën a nangoo juróom benn fukki at ak lu topp ñu ne ci Guet Ndar amul école primaire juróom benn fukki at ak lu topp ma dem dajeeg suma benn papa bu nekk nappkat ci Guet Ndar mu ne ma ñetti fan a ngi nii may lekk ceebu keccax nappkat buy lekk ceebu keccax mooy jën amatut juróom benn fukki at ak ñett suñu géej gii mel ni moomatuñu ko ana navire de pêche yi kan moom moom navire de pêche moo tax ñun ministre de la pêche ñoo ngi lay xaar assemblée nationale dinañ la wax nag dinañ la wax dinañ la wax dinañ la wax ñu ànd ci ak kunje ngir def inventaire du pavillon Sénégal bi nekk ci géej gi ba ñu xam ñan ñooy ñëw di jël suñu jën yi di ko yóbbu te loolu mënatul ne ndax dinaa leen wax tey lu ngeen xamut bu ngeen demee tey jii ci ñi ñuy jox ñi ñuy jox licence de pêche ay xale yu jàmbaare yoo xamante ni jaay nañ seen géej tey ca ndax ak ci ci Kayaar ak Mbuur ak fépp ndeysaan ñoom bu ñu demee dañ leen di jox ay licence de pêche ci Mauritanie waaye ndax xam ngeen ne Mauritaniens dañ leen di nappaloo ba pare pour ñoom bu ñu nappee ba sonn te napp googu rek mooy jàmm ji ndax mën nañ la fa tëj kaso mën nañ laa rey jël sa bakkan fii may wax ak yéen ña ngay xëcc ay fiil ña nga nekk ca biir fa gën a sori ca géej ga ña nga nekk tey jii doomu Sénégal yu jàmbare yooyu ci condition yu métti ci càmm gi budget tey budget élevage bu ñu la ko waxoon nga bëgg a jooy waaw loolu kan moo koy saytu bu dul député bu moom boppam loolu foog ngeen xam li ci xew ñi nga xamante ni ñoo nekk ci càmm tey 60 ans après bu ñuy jub tabaski wala korité bu Mali ak moritani tijjiwul seen frontière adduna tukki te ñu am ñoo waaye tey mënatuñoo sax càmm càmm gu normal ndax amul politique élevage amul tey Sénégal bokkoon na ci réewu àdduna yi njëkk am industrie thon ci réew yi àdduna bi laa wax de waxuma réew ci Afrique de ci adduna bi ana industrie yi tey ñu dellu ginnaaw ci wàllu industrie fukki at yi Sénégal defu ci benn conseil ministériel sur l'industrie amul taskatu xabaar yaa ngi ni yéen a gën a sonn bala ngeen a jot ci ministre de l'industrie adduna tukki conseil présidentiel sur l'industrie te dëkk yi développé ak yi développé wul benn différence la ñu am ñii dañ leen industrialiser ñii industrialiser wuñu leen ndax soo industrialiser wul ci importer rek ngay nekk nag wax dëgg yàlla importer rek njëg yi di gën a cher rek xoolal tey njëg yi ni ñu toll Sénégal nit ñaa ngi bëgg a dee ak coono njëg yi cher na lool lool nga am fukki juróom benn fukki at mënoo defal sax puso mënoo defal sax cure-dent koy importer waaw lan la ñu bëgg ñun. loolu mënatul wëy loolu nag encore une fois député bu moom boppam moo ko mën boo ñëwee boo ñëwee ci agriculture bi muy mbay mi muy domaine bi nga xamante ni bi ñu gën a yitteel la wala yitteel nañu lool ndax réew mu développé da ngay dunde la ngay bayee la ngay la ngay la ngay dunde mooy la ngay bay bay dunde waxuma la sax fierté bi ci waaye foofu it xel du dal day daj waaye boo demee tey dëkku Abdou Faye bale may seen ci ginnaaw cuccun ca ginnaaw jaxaaw waxuma la sax mbay mi juróom benn fukki at mënu leen a dimbali ngir ñu muum seen bopp ndax da bay ñetti weer foofu lañ ñu ko waxee ci cuccun dunde ko benn weer waaye bañ fa demee keroog ñun ñoo taal sunu oto làmp yi ngir mën leen a niital ngir mën a niit jotaay bi waaye li gën a yéeme mooy soxna yañ fa fekk dañ nañu léegi ñoom dañoo ragal a sax wan na lor dañoo ragal a ëmb ndax ay grossesse à risque la ndax tabaxal nañ leen centre de santé te benn matériel amu fa case de santé mais sëñ bi loolu nan lañ ko mën a accepter 60 ans après te assemblée nationale war ci def liggéey bu mucc ayib te kenn gisu ko ci kenn dégg ko ci noonu lay noonu lay trouver une transition ñëw ci hôpital Le Dantec boo ñëwee hôpital Le Dantec tey mu poser problème dinaa dellu si ci mbay mi bàyyiwuma ko damay dugg ci Dantec bi doog a dellu ci mbay mi boo demee hôpital Le Dantec li ci gën a yéeme mooy 60 ans après on ferme un hôpital qui ferme un hôpital ouvre un cimetière te fan yii fan yii fan yii suñu deful ndànk suul mi dina tar lool ci cimetière yi ndax génne malaat boo xamante ni li mu soxla woon mooy ak dal mooy quiétude nga xëy génne ko di ko ku ci am mbokk de sa fit dem na te xamoo ci yan condition lañ koy yóbbu li ci gën a yéeme mooy ñàkk yërmande giñ ci boole te kenn déggu ci assemblée nationale parce que buñ ne ma biñ koy tëj assemblée fekk na seen dé seen kii jeex na te ñi jëlaguñ fonction déedéet ndax processus bi yàgg na xanaa nëbbu ñu ko woon di ko di ko lijjanti ci suuf bañ ko yëgal assemblée nationale ana commission bi yor wàllu santé au niveau de l' assemblée nationale. ba ci biir Covid bi kenn déggu leen kenn xamul marché yi ñu ci jox nan lañ ko joxee kenn xamul ñan lañ ko jox kenn xamul nan lañ ko defaree loolu mënul wëy te loolu moo tax député am solo ndax loolu mooy liggéeyam contrôle. de l'action de l'exécutif et évaluation des politiques publiques donc Dantec li ci gën a métti nag du loolu li ci gën a métti mooy jaayum suuf mi ñu nekk ci réew mi gis nga Sénégal fi ñu jëm léegi ci kanam ma ci may may bàyyi xel bu baax waa jàmm gën am na ñu fa nekk ñoo xamante ni ñoom jëwriñ yaakaar naa ñoo ngi ci jotaay bi ñoom Abou Diagne seen xeex bi gën a mag mooy cimetière fi mu ne loolu la ñu bëgg ay ndaw xam nga ndaw ci réew ndaw boo xamante ni xexam bi gën a mag mooy ay waay nañu am cimetière fu ñuy suul xam nga ndaw moomu réewam yaakaaram jeex na ci réewam ndaw ak ni mu amee solo nga yàlla sax bu ndaw lay yónni ndaw boobu amul benn yitte bu dul lijjanti waaye ñoom abu wax nañ dëgg ak ñoom jëwriñ ndax li gën a métti mooy nga am néew te amoo foo ko suul te Sénégal foofu lañu ñu jëm léegi rek parce que ni ñu nekkee di caxat caxati suuf si. loolu moo tax ñun bu ñu eggee assemblée nationale dinañ ànd ak kuje gi incha allah ñu def benn commission d'enquête parlementaire sur commission bi nga xamante ni moo yor wàllu domaine commission domaniale pour ñu xam suuf si ndax li ñëpp bokk ñëpp ngi ciy jot wala déet ndax mënoo ñëw jël suuf soo xam ñëpp a ko bokk ñenn rek daal di koy pasar pasar yi daal di koy jël denc ko ba dencal seeni sët. te fekk na boobu am na sénégal yoo xamante ni yitte woon nañ ko te mënuñ cee jot li gën a yéeme sax mooy tey am na dëkk yoo xam dañoo bëgg a école te amuñu fuñ ko tabax Guet Ndar nee nañ leen amuñu suuf ñu tabax seen école primaire te au même moment am na yeneen suuf yu ñuy jël di ko caxat-caxatee suuf soosu ma tudd ci Dantec te nga xamante ni du dëgg du yoon ci ci nii ñu ko defee te ñun dinañ ko xool ba xool ñan lañ ko jaay ak lu tax ñu jaay leen ko ak lan lañ fa nar def ndax tamit hôpital tamit mënul lëkkaloo ak lu ne kon lañ fa war a def sénégalais yi war nañoo xam lan la loolu y a rien de plus normal et c'est pas tour demandé wala ñun léegi moomatuñ suñ suuf Sénégal nag cent quatre vingt seize mille kilomètres carrés la tey jii boo demee dëkk bu mel ni Japon su nit faatoo dañuy xool ndax am na héritier su ko amul gouvernement bi day daw jël suuf si téye ko ndax suuf mooy matière première bu njëkk bi dafa am solo lool. mooy mënuñu koo jël léegi di ko pasar pasare di ko caxat caxatee kenn xamul kan moo ko moom donc li xew la Dantec dama jàpp ne c'est un scandale te dama jàpp ne ñàkk yërmande daf ci feeñ ñàkk ma daf ci feeñ ñàkk itte tamit daf ci feeñ donte xam naa ne le directeur de l'hôpital la Dantec jàmbaaru fàkk tëdd la liggéeykat la waaye mbir mi gisul dara yëgul dara dañ ko yëgal. donc loolu dinañ si gën a ñëw loolu it ki ko mën a saytu mooy député bu moom boppam donc pour ñëwaat ci suuf si ci agriculture bi mooy mbay mi dama wax ministre de l'agriculture ne ko ngal la ñu bàyyi campagne agricole te di am politique agricole baykat yi sonn na mënuñoo am jiw di daw ci ginnaaw jiw na man man man baykat laa daan naa bay même bu fekkee ne euh, sama xarit bi bëgg ko nangu du Dieng mais baykat la mais li tax bay ngay xam ne dellu na gannaaw mooy ko sunu maam yi doon defee ba tey noonu lañu koy defee bu ngeen génnee fii dakaar tey na nit ñi daan bayee jàpp ci machine bi topp ci ginnaaw fas yi noonu la ñuy bayee ba tey te at mu jot ñu ne annoncé nañ ci ay milliards waana milliards yi milliards yi fan la dugub ba tey mënuñu ñu sunu baykatu Sénégal mënuñoo dundal ba tey mënuñoo dundal Sénégal càmmkat yi tey bu ñu la waxoon li ñuy importé ci lee nga téye sa gémmiñ ak li muy Sénégal en terme de milliards te loolu buñ ko defoon investissement boo xam contrôlé nañ ko jàpp nañ ne loolu mën na soppeeku waaye dañ cey gis ñàkk yërmande ak yaafuus goo xamante ni foo ko takk weesu na ko yaafuus googu sax ak bëgg seen bopp fàtte réew mi mais loolu moo feeñ ci inondation yi ñu taxaw di jaale bu baax baax ñi nga xam ñàkk nañ seen bakkan ci mbënd mi ak ñi nga xamante ni bu xiinee rek comme lañ ma wax ca pikin bu Saint-Louis ñu ne ma bu xiinee rek mu taa buy xiin rek muy taa loolu nag xam nañu ko journaliste yi yéen couvrir ngeen bay bëgg a dee depuis dix ans les inondations su leen neexee déwén denc leen image yu ren yi su leen neexee déwén ngeen génne les mêmes images xanaa ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen am éthique ak déontologie rek def ci archive waaye bu leen ko ci defuloon sax duñ xam ndax daaw la wala ren <laughs> ndax ñàkk mu ne ndax am na ñoo xamante ni situation boobu moo leen gënal ndax ci la ñuy dund comme ñi nga xam am na ñoo xam situation santé bi ni mel moo leen gënal ndax ci la ñuy dund comme ñi nga xamante ni situation njàng nii mu yàqoo moo leen gënal te nag bu santé bi yàqoo ñoom ña ngay faju de bu njàng mi yàqoo seen doom a ngay jàng de loolu nag du réew la république est une révolte contre les injustices et les inégalités sociales La promesse républicaine, la promesse républicaine, moi que chaque génération doit vivre mieux que la précédente. loolu mooy la promesse républicaine waaye bu fekkee ne ñun ñoo gën a sonn suñuy papa jigéen ñi ñoo gën a sonn sunu yaay yi mooy cette promesse n'a pas été tenue et la promesse n'a pas été tenue loolu moo tax ñun ñuy dugg ci politique bu doxoon du ci dugg mbir mi doxul te yéen xam ngeen ko nit ñaa ngi bëgg a dee xaadim si la duma ma moom mi taxawu liggéeykat yi mu ngi bëgg a dee du ma donc di wax ne loolu yitte bu mag lañ ci am ci quatorze législature bi quatorzième législature bi dina ci def taxawaay bu am solo li ma wax léegi ku jégi ñoo ngi leen di xaar ndax ku jégi ñun ni ñu war sayto li gouvernement du Sénégal di def noonu it lay askan wi war a saytoo loolu ñu dëxëñoon nag ci sunu contrat de législature yeeg ci sunu programme yeeg ci sunu profession de fois yi loolu askan wi maa ngi leen di ñaan bu leen ko fàtte de la ñu ñëwoon waxante ko ak yéen ñi ñëwoon waxante ko ak yéen ba ngeen yóbbu leen assemblée nationale ku fa dem nekk ci boppam fàttali leen ko ne ko fàtte nga ñu ci sa bopp nga nekk na ngeen ko saytu contrat de législature yeeg programme yeeg. profession de fois yi bu leen bàyyi dara mu set dee leen ko saytu dee leen ko saytu ku ngeen ci gisatul tamit ngeen fal ko mu dëkk caajaay wala mu dëkk sànjar wala mu dëkk cuucun wala mu dëkk jaxaaw wala mu dëkk feneen ñu fal ko mu ñëw tëdd ndakaaru bu boobaa it nee leen ko loolu taxuloon ñu fal la de tu n'es pas un député Dakar waa waaye ñu fal la nga dëkk fa gën a sore ah au lieu nga jël exemple ci ñi nga xam ay jàmbaar lañ waaye nga tuxal sa njaboot tuxu ñëw jël ab appartement dëkk fi ndakaaru fàtte ña la faloon ba élection jotaat pour ñu ñëw gis la loolu moo tax ñiy toll ci ñeenti million toog lii taxoon ngeen toog waaye maa ngi leen di ñaan ngeen jóg ndax jóg jot na jóg jot na te fii ñu jëm fu am solo la te foog doomu Sénégal yëpp jóg ngir xam ne sunu réew bii réew mu mucc ayib la réew mu mu màgg la réew la boo xamante ni waratuñoo bàyyi ay yaafuus di ko jiite waratuñoo bàyyi ñu ñàkk war ma di ko jiite waratuñoo bàyyi ñu ñàkk teggin di ko jiite waratuñoo bàyyi tamit ñuy xaawi wante sutura ak sosalante di ko jiitu di ko jiite waaye dañ ko war a dañ ko war a dénk ñoo xamante ni bu ñu waxee ñu xam ne xam-xam feeñ na bu ñu jëfee ñu xam ne teggin feeñ na bu ñu jëfee ñu xam ne itte juy fàttali itte mag ñi feeñ na donc sunu ambition encore une fois mooy servir le Sénégal ak servir li nga xamante ni moom mooy doomu Sénégal di gërëm bu baax nag la diaspora sénégalaise di leen massaw ñooñu nga xamante ni fu sori lañ jóge jël métro ndeysaan fu dox lu yàgg lu sori ngir nekk sunu mandataire te mësuñu ñoo gis mësuñoo ñoo dégg dem lu sori nekk suñu siégeant ngir mësuñu ñoo dégg mësuñu ñoo gis comme niñ ko gisee fii ci réew mi keroog bésu élection yi bi midi di jot dama ne lu mën a xew lu mën a xew dañuy génn xool sénégalais yi ci biiri bët lu mën a xew ndax lañu gis keroog ci fajaru vote boobu ñi jóg taxaw taxawaay bu am solo mësuñu ñoo gis mësuñu ñoo dégg di ñu siégeel nekk ay mandataire am na ci ñoo xam dañoo togg ay ay ay xéewal yóbbul ko ñu nga xam mosuñu ñoo gis mosuñu ñoo dégg waaye ñooñu kan moo leen mën a fay kenn mënu leen a fay waaye moo taxit seen député yéen rek lañuy nekk yéen waa Sénégal ñi ñu voté ak ñi ñu votélu seen député rek lañuy nekk. kon ñoo ngi euh, di leen wax ne politik foofu lay jeexale dafa am solo lool dafa mënta ñàkk ndax mbir yi faw ñu ko faw teg ko ci ay loxo ci ñoo xamante ni duñ yem ci bokk ci dëkk bi waaye dañuy bokk ci ñiy defar dëkk bi comme Valère sàmm dañuy jàmbare lool xam ne lu mën a nekk la mën nga jóge ci daara ni ñu fàttee tey jii ñi nekk ci daara yi ni ñu leen fàtte ni ñu leen beddee la république c'est l'inclusion c'est pas l'exclusion la république c'est c'est une révolte contre les inégalités loolu moo tax ñun dañu ko gisut tey lan moo tax am ñoo xamante ni bu ñu feebaree war a faju am ñoo xam bu ñu feebaree war a ñu faju lan moo tax ñii war a jàng ñii duñ jàng nekk ci daara di jàng kenn ci jàmbaar yi moo ngi nii ci sunu ginnaaw muy Babacar Seye nekk ci daara di jàng ba mokkal di jàngale ba ci yàgg mu ne waaw tellement yëri li ñuy jàngale ci école tubaab bi dem di ko yër ba ci yàgg mu ne tellement def candidature libre def candidature libre at mi at ma ca topp mu def sixième ba ci yàgg mu ne tellement def examen bële rek def BFEM at mi bi mu defee BFM at mi ci topp mu def mu def baccalauréat daal di am bac daal di dem avec la mention daal di dem fi nga xamante ni moom mooy université Gaston Berger dem Gaston Berger atam mu njëkk te ci daara ji la génne de moo tax daara ji am solo atam mu njëkk mu créer entreprise bay recruter quarante personnes au niveau de l'UGB première année te valeur yooyu ci daara la ko jëlee léegi nag ñu ne la booy def politique sax dañ naan la ah léegi politique moom boo koy def nekk fi di wax ay ay yàlla nee na di wax bible bi wala nga naan aaya alxuraan yi ni eh, politique du loolu de waa politique mooy lan kon lan mooy politique ba kenn waru cee tudd aaya alxuraan kenn waru cee tudd xaddis yonant bi kenn waru cee tudd bayitu Serigne Touba wala Mawlana Cheikh Ibrahima Niass wala Seydi Hadji malik lan mooy politique boobu boobu réew mi xamu ko. réew mi dafa soxla des politiciens des hommes politiques yu koy ressembler loolu yàqu-yàqu la boo xamante ni ñun dañoo jóg ngir soppi ko encore une fois soppi président Abdoulaye Wade 1974 ba soppi la taxoon mu yàlla na fi yàgg te la taxoon mu tudde ko soppi xam na ko mbir yi foog ñu soppi ko mbir yi foog ñu soppi ko ña fa nekk ña fi nekkoon nag ba tey ne soppi du am ñoo ñoo fi ne ba tey nee nañ mbir yi kenn du ko soppi dañ koy doxale nii ñu koy doxale il faut que ñu soppi ko donc empathie dañ ko war a indiwaat ci politique mooy yërmande yërmande dafa ñàkk lool ci politique politique it kenn du ci ñëw ngir defaru dañ ciy ñëw ngir defare kenn du ci ñëw ngir yàqe dañ ciy ñëw ngir defar kenn waru cee yàqoo kenn waru cee yàqe kenn waru cee yàqoo kenn waru cee yàqe politique teggin la politik xam-xam la politik ite la loolu moo tax ñun de ku ñuy xaar ci xaste ak sosalaate ak waxal nit lu ñu wóorut ak ŋàññante doo ñu ci gis te lu muy maye duñu ko am waxante lu bon xastante sosalante ñàkk teggin ak worma lu muy maye duñu ko am waaye nag teggin ak xam-xam ak itte bu neexee yàlla lu muy maye dinañ ko am ñoo ngi gërëm bu baax encore une fois ñi ñu gunge ci liggéey bi ak ñi ñu ci àndal ba ñu jógee ba tey di leen wax ne leen assemblée nationale position biñ fay am statu bi fay am mooy bi ñu askanu Sénégal tànnal mooy kat taxawu dëgg mooy bañ a dugg ci combine politique bañ wut ay privilège wu yóbbu ñu assemblée nationale wut ay honneur yóbbu ñu assemblée nationale wut defar sunu dundin lóbbu ñu assemblée nationale moo tax keroog bi ñu yëkkatee sunu loxo ñu ne dugg rek yitteeluñu waaye duggiin bi moo ñu yitteel te li ñu ci bëggoon mooy bu ñu duggee mën a am suñu liberte bu mën a tax ku fa mën a toog ñu mën a wax ak yow li nga xamante ni moom mooy dëgg ak yóbbante askan wi askan woowu voteel ñu ak ñooñu nga xamante ni voteeluñ ñu ameel nañ leen cant goo xam am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem te dinañ dellu siwaat ci yéen ngir sant leen gërëm leen waaye déglu leen dinañ ñëw ci gox-goxaan yi gën a sori dinañ ñëw ci pàkk yi gën a sori ngir yëgal leen yéen ñi ko yëgul ci lu ñu ne ñi yëgoon ci lu ñu ne ñu feddali leen li ñu ne déglu leen tijji suñuy nopp dékk leen suñuy gafaka ngir ngeen wax ñu li nga xamante ni xam nañu ko ba pare ngeen fàttali ñu ko muy li ngeen di dund ak seen dundin ngir ñu ñëw assemblée national ëmb boobu nag ñu teg ko fa lépp lu am njëriñ ñu waxtaane ko lépp loo xamante ni amalul njëriñu askan bi na buñ ñu ci dégg te bu ñu sañoon képp kuy ñëw ànd ak ñun te ñoo ngi tàllal suñu loxo doomu Sénégal yépp ngir lii ñuy def ñu gën koo mën a def ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew ngir ñu gën ko mën a def ngir ñu gën ko mën a taxawu ngir ñu gën a mën a saytu Sénégal bi nga xamante ni moom la ñu bokk te assemblée nationale dafa am solo c'est le lieu par excellence de la démocratie du débat démocratique moo tax boo demee dëkk bu mel ni France tey bu ñuy financer sax parti politique yi dañ leen a financer en fonction ci ci ci seen représentativité au niveau de l' assemblée nationale assemblée nationale kon kenn waru ko caaxaane kenn waru ko fooye kenn waru fa nekkit nekke fa tàccu kenn waru fa nekke saaga képp koo xamante ni yuuxoo ak saaga ak xaste jàpp nga ne mooy tax ñu yóbbu fa xamal ne ku wor sa askan nga képp koo xamante ni it tànn nañ la ñoo ngi lay ñaan ñala tànn bu leen wor bul tas seen yaakaar kon ñii ñu tànn tey dañ ñoo tànn ñun ngir jàpp ne lii fi ne am na lu ko gën mooy système bi dañ ko war a soppi soppi bu président Abdoulaye Wade dañ ko war a soppi li fi ne dañ ko war a soppi doxalin bi baaxul choix bi choix des hommes comme des femmes dafa des il faut que ñu accepter jël les meilleurs sénégalais confier leen les postes les plus stratégiques pour ñu doxal ko ba pare ndaw ñi encore une fois ñi nekk ay xale di jàng maa ngi leen di digal ngeen gën a jàng gën a góorgóorlu ñi ci yor métier maa ngi leen di digal ngeen gën ko fonk gën ko mën te bañ ko caaxaanee ñi nga xamante ni seeni wayjur a ngi dund maa ngi leen di ñaan ngeen fonk seen wayjur te wekk leen fonk leen leen wekk leen leen bëgg leen leen soo bëggul sa wéjur soo bëggul sa kër soo bëggul sa espace immédiat mënoo amal njariñ pénc mi ku la dénkit day nax boppam rek ku la dénkit day nax boppam rek kon ndaw ñi bu leen kenn soriloo seeni wéjur bu leen kenn foofu lay jeexale bañ loo Sénégal Sénégal dëkk bu màgg la yàlla defal nañu lépp réew mu yàlla bëgg la lépp am nañ ko booba ba tey li ñu sonal rek mooy dañuy dénk ay yaafus rek ak ñu ñàkk yërmande rek waaye lépp am nañ ko kon nañu góor góorlu bu baax fonk li ma leen wax léegi li nga xam mënta ñàkk te dinañ leen taxawu dinañ taxawu culture bi ak ñu nekk dans les métier de la culture dinañ taxawu spoor bi ak ñu nekk dans les métiers du sport di ci yëngu sonn ci dinañ taxawu mbay mi waxatuma sax agriculture ñun on parle des métier de l' agriculture waxatuñu sax élevage on parle des métiers de l' élevage waxatuñu sax pêche on parle des métiers de la pêche te pour mu mën a am dañuy taxaw temm ngir que le président de la république ak le gouvernement du Sénégal convoqué sans délai bu ñu defee gouvernement bi un conseil ministériel sur l' industrie parce que industrie mënta ñàkk wala un conseil présidentiel sur l' industrie kon loolu lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy dëggal la lu ñuy taxaw la kon ñun ñi nga xamante ni muy la coalition les serviteurs bi nga xamante ni suñu borom defaloon nañ ñu tawféex ak soññuñu ak ñaaxuñu ak dénkuñu ñu jiite ko euh, ñoo ngi wax askanu Sénégal ne leen nekkuñu fenn nekkuñu ak kenn ku opposition Sénégal bu dëgër boo xamante ni opposition opposition Sénégal bu dëgër boo xamante ni kenn du ko moom kenn du ko fooy kenn du jënd ngoram kenn du jënd yaakaar yi nga xamante ni dafa am ci Sénégal waaye bu dëggu lay doon bu am xam-xam lay doon bu am teggin lay doon bu bëgg Sénégal lay doon bu bëgg magi Sénégal lay doon bu jox cër Sénégal lay doon bu ittewoo Sénégal lay doon fàtte boppam assemblée nationale ñun ay destin personnel yóbbuwuñu fa ay ambition personnelle yóbbuwuñu fa taxawal Sénégal moo ñu fa yóbbu te Afrique lii moo tax mu tardé pers on ne s'interroge pas on s'interroge sur le nombre de mandats mais on s'interroge pas du mandat qu'est-ce qu'on va faire du mandat ñun ce qui nous intéresse c'est ce qu'on va faire saa bu ñu xëyee lan la ñuy def ci kóolute googu ak yaakaar yooyu sénégalais yi jox ñu ak teg ñu ci suñu kaw donc loolu moo tax tey la position wala le statut bi ñuy am comme ni ngeen ko xamee bi ñuy am comme